aussi béy bi nga koy woowee béy bi. waaw nag suma doom la suma xarit la suma jabar la mais doom sama xarit la ma loof ko lool nag wax dëgg yàlla yee loolu moom <laughs> daaset ci kaw laa koy wax waaw suma xarit la suma jabar la suma doom parce que dafa jafe nga takk xale ak jamono fu mu toll mu bëri bëgg-bëgg musuma toog mënuma ma franc la soxla lu garaaw nag laa lay wax mais sa classe bi ku leen takkoon suba cheveux naturel bi ganilaa bi sama VIP bi cuub bi sama orier da dul ñëw ma ko fee xaar sa classe gi laa ay détails mais sant yàlla. c'est que guy gi <laughs> bi mu takkee jabar dafa jaaxal ñu bari parce que ni nga kiiwee nii sama genre yi ñemewuñ la. non loolu ay waxin la rek. Hmm. jigéen moom ku actif la gën a bëgg sax ku yambare mais waxin la rek gars yi moom des fois dañuy bëgg ak dëkkal la foo dëkkul en tout cas daal dem naa ba war a bëreeg bëri nag tafaatin daan war a bëreeg jos ma waxtaan ceeg na sama xel nekk takki jabar sama jabar sax quinze jours la ma 15 jours laa ko doxaan mu romb ma rek ñu waxtaan ci après noo ko doxaane <laughs> waaw dama damaa romb benn sama benn ngéntal Mansour Ndiaye sama benn ngént a gayan ma ne Baye Niass kii kala mënuma doomu gëla ndongo la Serigne Ndongo ma ne ko yii booy bi rek gayan bëgg naa ko xam man moom bëgg plané pour ma ñëw damay kaf rek ma ne ko booy li jënd numéro bi mënuma numéro bi boobu cent mille laa koy jaay après soixante quinze mille laa ko mujj jox ñoo lijjantil ma ko bàjjan bi bi mu ñëwee rek bi mu jël numéro bàjjan dafa tàng nag yaa su ndongo di ko nuyoo par sama goro la ñëw Basile numéro bi pour Isma expliqué ko ne ko maa ko soxla mu kon baax na xam loolu rek signe la preuve bu baax la maa soxla mu ne kon garaawul kon loolu libéré na ma su den caaxaan du ko def après bàjjen bi bi may ñëw bàjjen bi présenté ñu waxtaan benn yoon ñaari yoon après ma xam ne booy bi daal zelov upset pour ñu dund may bëre ji non waaw ma dem contre Tafatine daanu ñu ni maa yow yow takkagoo sax kii dafa gaaf na wax ju xam nga rek gaa yi wax ju bon moom dafa yàgg ci ay détails kii takkagoo sax gaaf commencé kii dafa gaaf nangam nangam ma leen kon làmb laay bàyyi ndax dinaa ko takk billaahi ma leen làmb laay bàyyi ndax dinaa ko nii la ko bi bàjjen bi am lu ko naqari moom am lu ko metti ma ne ko daa yu ci yooyu xëy contre Zos ma takk ko dem bëri Zos daan dem bëri Zos daan ko këram fees dell ñëpp di ko félicité ma gis àddunaa yi noonu ñu la doon wax naan la da ngaa gaaf ñooy te naan da ngaa baax moo tax laay defal li nga xam moom nga gëm rek après ba yàlla def ñu nag yaa de deux gosses incha allah ñu suñu jàmm ñu sant yàlla wér nag man ak moom ak suma famille yëpp du def lu ma yëgul mosul fay euh, bañ na ko ba lu muy wax daal waaw man ak moom la te sant naa ci yàlla te bari na ci léegi ci jigéen ñi léegi mënoo ko am ci ñoom un deux ñu fay dem fu leen neex man boo ma waxee mu déglu ma. samay waajur seen loxo la yam jeex na loolu mooy sama diggante ak moom di ñaan yàlla yàlla mosul cat man ak moom. Mhm. mais avant moom daanoon nga doxaan lu bëri. non bu góor bu fonctionné wul yaa ku fonctionné wul ku xamul sa bopp ku xam sa bopp non da ngaa bëgg la xarit naa leeral lépp de yow xam nga da ngay daw mbëri di la daw wala nga yekk mbëri lu mel ne man maa la yekk lu mel ne xëy wax la ma bëgg a wax góor bu fonctionné moo dul doxaan kooku moom day teel xam sa bopp jël course gi di jaamu yàlla déggoo ma de. mais bu dé di nga fonctionner ak yàlla am lu def ci yow nga yek sa bop di yek ni yow ni yow yaay fonctionner fonctionné di nga doxal di nga labat lolu munul ñak munul ñak day wañi mbeur dé dégg na jigi non doxaan ak fo bokul da nga nan ma est ce que yaang ngi doon fo. yaa doon fo non non du ma fo. mais yaang ngi doon doxaan maa doon doxaan doxaan mooy ki la bëgg nga ne di ngeen bëggante ak mom amna boy am dañ ma doon wo mbeur nangam nangam ma leen nangam nangam ñu ñu weccante ay cadeau des ñu tok mais da nga xam fi nga yem mais après li dess xam nga moo tax tàngal mante jar da ngay toog waxtaan ay dara ay kenn xamul exagéré jar loolu junj la rek maa la gën a feebar foofu damay leeral rek damay daf daf du woo de xare xam nga lépp. man man kay xaw ma dara. xam nga lépp xam nga lépp tey boo doon doxaan jigéen en français tey noo koy man ay joxaan ay jigéen en français loolu moom buñ ci tolloo moom dinaa ko wax. xam man dama lay wax xam ne man non tolloo ak moom ba mu wax ko français mu defe ni moom ma gën a dégg tubaab dinaa ko ko làkk de ma de man noonu lay dundee ak jigéen waaw ah, mais yàlla defal na ma nag wax dëgg ma doon nekkal musuma cee toog kenn ba kenn la wala ñaar dem sa kër ma ne baay bi dama koy takk dama wax lu garaaw nag yaay ji dama koy takk hasard la woon nii rek waxtaan waxante changé carte nit ñi xamee koog man li des yëpp. waaw mais nag sant yàlla la ko li des moom nañ ko bàyyi ci loxo yàlla waaw man moom waaw parce que bala ñoo toog naan kii wor na ma dañoo gaaw ci wor na ma waaw te sa classe gi dañuy yor juróom wala juróom benn kenn dem ñu ne noo des na kaat waaw dañuy am benn niw benn bii ñu bind ci moodu deux moodu trois moodu quatre moodu cinq moodu six ba moodu sept moodu quatre bu demee ñu ni moodu des na moodu cinq moo cinq moom dina def différence moodu cinq dem ñu ni moodu quatre des na ba moori moori jeex yépp moori jeex ak yeneen yi xam ma la bëgg a wax waaye nag dañuy ñëw jël loolu naan yi da ngeen ñëw wor wor ngeen ni ñu waree yeneen njëkkee wor yi kon yow am na ñoo wor avant ngay takk jabar non non loolu laa bëgg moom moo tax ma leer la amul ku ma toog sa papa neel dama lay takk wala sa yaay ay détail am naa ci nag ñoo xam ne am nañu relation yu particulière yu garaaw waaw yu garaaw particulière yu garaaw yoo xam ni mën naa ko assumer mais tamit suñu borom mooy dogal diggante bu antu ñooñu mën naa leen takk faatu ñu tënj ma du ma ko def antuwul mais ba may def lu antu yàlla ba mu tuddee kii nga xam ne vraiment suma doom la ma loof ko bëgg ko takk ko yàlla antal na ko li des nag lu ñëwaat ñu xam ne loolu la mais lu ñëwagul moom mënuñu see wax quoi waaw. d'accord mais léegi boo xoolee sa carrière yëpp fi nga jaar yëpp. yow nga takk ñaar non non de la vie pour l'instant nii loolu nga bëggoon dégg. jamais de la vie bébé rek benn boobu doy na ma sëkk li am suba nag sunu borom xam ne site dafa garaaw. li am solo suñu borom xam mais benn instant bi doy na ma. waaw ah. bébé daal mooy surnom bébé. non du bébé bébi. bébi bébi bébi. d'accord anglais. non bébi non pas anglais anglais ah, anglais euh, mun na wax bébi mun na wax. mun mun mun na wax mun na ko même même même français mun na ko wax bébé bébé ñëpp mun nañu ko wax même même olof mun na wax bébé yow loolu anglais rek moomu ko dafa mooy yoo xam ne koo bokk waaw mi ngi mel ni incha allah ñëpp a ko bokk chrétien bi juif bi chrétien bi yéefar bi ñëpp incha allah ñëpp ko bokk te incha allah moom mooy bu neexee yàlla te am na ñoo xam ni moom gëmuñu yonent bi mais gëm nañ yàlla kon bu ne incha allah ñoom lañ bokk ak lañ bokk kon ñu boole mu nekk benn gërëm boo yaa ngi dégg di sant ñëpp